mooy xam nga Sénégal moom euh, boo doon laaj réew mu ëpp ay naafeq ci àdduna Sénégal numéro un lay doon. ñu dajale woon àdduna bi yëpp réew yëpp. ne dañuy tànn ban réew moo ëpp ay naafeq Sénégal la ñuy jël que nag euh, wax nga ko sànq ma tëb question bi mooy que yéen waa pouvoir da ngeen bëri ay laqar ci wala nangam nangam. dama lay xamal ne élection kenn mëntu ko sàcc loolu ku ne xam ne élection kenn mëntu ko sàcc mais yéen ñii ñëpp ay xale ngeen mais da ngeen ñun fekkee nañ ay vote ci Abdou Diouf fekkee ay vote ci Senghor fekkee ay vote ci Ablaye Wade fekkee ay vote ci nguuru Macky Sall mais nii ñuy voté ku xam ne nii. ay la yéwén élection kenn mëntu ko sàcc loolu leer nañ beneen bi nga xamante ni nag euh, moom nga ma wax léegi ci àdduna bi tey di sëñ Abdou waxoon rek laay wax doomu aadama koo xam ne boo waxee benn wax ñu fulandi ko ba muy téeméer bala ngay wax war ngaa xool li ngay wax bu baax a baax dara gënul maanaam rëy fit wala ñeme bàkkaar ba tax ñu ni diw dem na salon nangam def na fa nangam wala wax na fa nangam ba muy dem yow fekke woo ba muy dugg fekke woo ba muy wax la muy wax fekke woo amu ci kenn koo xam ne jël nga responsabilité pour wax ci loolu rek man dama jàpp ni doo nit ku ragal yàlla parce que ñun ñii ñëpp man mii di wax ak yow ak ñeneen ñi mel ne man ne ci rajo yi ak télé yi di wax amu ci kenn koo xam ni mën nga ci wax lu leer da ngay wax rek ci sa gis-gisu bopp ak sa dëgër fit. man moom li ma ci mën a wax sax du bari du sori ndax li El Hadj rek laay wax lépp lépp daal man jàpp naa ne waa ji rek ndax wolof Njaay nee na ma ca sabar ga moo gën a wóor jotumaa fecc waaye man nag su ma doonoon moom problème bii mën naa cee génn da noon ni ma ciy génne dama na xam nga du ma ne maa yóbbu sama bopp ndax man ba ma déggee yëf ci sama xel nag waxuma ko ci rajo waxuma ko ci télé mais dama ne ah lii daal complot sama xelu bopp mais duma ko wax fen waaye nag ba mu defee point de presse ne man demoon naa laa ne astaghfirullah demoon naa man nag ma jàpp ni daal dew ma ca sabar ga moo gën a wóor jotuma fecc waaw ndax nag man mi nga xam ni nekk gu ma sax chef de quartier am na loo xam ne tey su ma fay dem en tànk que Oussou Dia jiite boo xam ni am na 66 groupement de femmes man ma jiite leen tey nekkul Oussou Dia ba nekkoon démb fu ma neex dugg fu ma neex toog te man soxlawuma chef de quartier laajuma chef de quartier kon ku dem bay laaj réew jàpp naa ni fépp fooy teg sa tànk waroon nga ko gën a mën a xoolaat bu baax a baax. côté boobu moom vraiment du ma ci sori mais bu doon maay moom ni ma ciy génnee comme affaire complot la da naan rek man daal damaa yeewu rek gis naa bopp Sweet Beauté xaw ma dañ ma pomper gaz xaw ma dañ maa gëlëmal waaye daal damaa yeewu rek fekk fi sama bopp su boobaa sax dina <laughs> xel dina ko xaw a nangu tuuti waaye maa yóbbu sama bopp ànduma garde corps ànduma ak chauffeur ah vraiment dëgg dëgg nag ah lu loo loo ragal ci guddi daal lu ne mu ngi ci guddi daal foofu daal laa ko mën a yemale